masul sa jaloore dene faatma dene faatma sëriñ Seex faatma masul sa jaloore dene faatma dene faatma sëriñ Seex faatma sëriñ Seex faatma dene faatma sëriñ Seex faatma dene faatma alhamdulilah ala kawi rasul murid yi ngeen déglu man dam mun ko suul sat la ca xadim al mustafa xayri rasul lawal jalali wal jamali wal busolo masuli sa jaloore ngay ne faat ma ndax yàlla aar la man mii mu aar ma Cheikh Mbacke maa di sa géwal ma way la man gontu naa la jàng naa doo bis doo xam fakk yaa di ma góor seetu naa la maay sallar si yaa tedd yaa teggiinu am teraanga yaa ñàkk tuuma yow am loo yaraanga yaa gaaw ci soxlay waa Kajoor ak waa Njaambur ku ne naan Seex Mbàkke fay na saay bor waalo basiinu waa Jolof ak waa Njaambur ganaar ba Fuuta ñëpp naa la maalum doo fàtte fàtteloo ko dox ju bodde doo futti kooka suti kooka botti doo bodde doo gëdde te yaa nuy woddu yal na say bañ yëpp xëy ni koddu walaay baax bu doon teraa may bañ doo gis ku bañ seex mbàkke mbaa ko koy foñ du weccey soppeem ba tax mu bombe du wet ci noonam ya def fa njombe Cheikh Mbacke xajut fu sew mus la jëw du wax miim te foo ko jëw ñu caw la kon ne leen xiim xutbul waraala mooy dogal daate la bay ka wisi bul ma fàtte xutbul waraala yàlla mooy dogal atte labayka wuy si naa la bul ma fàtte ne naa nërëm siw mi atte pey bi ne naa naraw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu seen télévision bi bu mag bii di RTT TV euh, bu ngeen gisee jotaay bu am solo bii nga xam ni moom la amal tey euh, di waaj bis bu am solo muy bisu conférence euh, di bis boo xam ni wilaya femme bu section Thiès ñoo ko fas yéene organiser le 9 incha allah di tombeek dimanche fi nga xam ne mooy Touba Thiès ngeen gis ñu toog ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ci njiital Serigne Moustapha Dieye mi nga xam ne mooy jëwriñu section bi ak ñi ko àndal waaye ngeen gis ci bi sunu wayjur yu tedd yi euh, sunu yaay Xadi Sall ak ki nga xam ne mooy sunu yaay Racky Thiam euh, ñoom ñi nga xam ni ñooy téye liggéey bi ak sunu yaay Xadi Ndiir euh, bu ko defee ñuy waaj bis boo am solo boo xam ne dañ cee fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy seen lislaam seen diine fas yéene cee fàttaliku taxawaayu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ànd nag ñoom ci liggéey bi mbokk yi duñ sori ci kàddu gi dañuy jox kàddu gi Serigne Moustapha Dieye bu ko defee mu dugg ñun li nga xam ne moo sabab bis bi ak ndigal li fan la jógee incha allah kon ñu jël kàddu gi jox Serigne Moustapha Dieye aawuzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki réew mi fédération des groupements religieux et culturels de disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ñu xamee ko ci ittihaadu atbaa'il xadiim li taawuni wa tamasuki bi diinil xawiim waaye section Thiès nag ni ci biir kuréel googi ñooy amal bis boo xamante ni ñu ngi koy amal ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Muntaqa euh, xalif général de Mouride. waaye ci foog sëriñ Ahmadul Muxtaar xalifab Cheikh Mouhamadul Moustapha yàlla na yàgg ci kaw suuf lool te mu ànd ak wér waaye ci kilifteefu sëriñ Cheikh Mbacke Madina moom sëriñ Cheikh Mbacke Madina moom sëriñ Mbacke Madina ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Bombali waaye ci kilifteefuk sëriñ ahmadu sëriñ abdourahman mbàkke xalifab sëriñ cheikh fatma ak ci kilifteefuk sëriñ mouhamadul moustapha mbàkke assuburi mi nga xamante ni moo jiite fédération bi waaye ci teewaayu nag sëriñ moustapha mbàkke moom sëriñ mbàkke soxna loo waaye ci taxawaayu itam nag sëriñ cheikh mbàkke souran ak sëriñ moussa mbàkke moom sëriñ cheikh ahmadou mbàkke gaynde fatma ak sëriñ lamin mbàkke moom sëriñ mbàkke madina ani ñiy defal bis bi ñan la mooy wilaaya faam bu Thiès ñooy taxawal bis bi bis bi lan la ab conférence la bu ñu baaxoo def yàgg nañ ko def lool jële woon ci ndigalul jàmbaar jël sëriñ Mbàkke soxna loo sëriñ Mamet Mbàkke yal na yàlla yokku leeram ci lañ jële woon ndigal la daa ko def at mu nekk ren jii nag ñu war koo def dimanche 9 avril fii ci Touba Thiès xam naa bis boobu nag bis la boo xamante ni ñu ngi sàkk képp ku di jullit ci dégg sunu kaddu ak foo mën ne ci réew mi mbaa foo mën ne ci dëkk bi ca yàlla man loola nga teewe bis bi noo ngi sàkku sa teewaa ci bis bi bis bi niñ koy amele nu muy demee mooy dañuy xëy insha allahu taala ci yoor bi jàng fa alquranul karim di waxi sunu boroom def ay ñaan ñaanal ko mbooleem way dawle yi nga xamante ni dañoo aju woon ci liggéey bi ci jiitu barsàq bi ci des moo di conférence ba ñu ngi koy tàmbali ci waxtu woo xamante ni mbi di jot na ci kàddu sëriñ Modou Mamoun Diop di conférencier bu mag bu ñu bari xam te mbay tam nag di sëriñ Touba ak jàmm nan la sëriñ Touba dunde woon jàmm loolu la ñuy waxtaane mooy thème bi nga xamante ni mooy thème conférence bi loolu nag noo ngi sàkku jullit yépp def ci ñaan ba nu am ci lu kawe sunu njort waaye def ci naa itam ngir fasal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko fa yàggal ci dolli wéram waaye noonu nag lañ koy ñaanale njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ka ne ca bopp ba sëriñ Modou Mbenda sëriñ Amdi Modou Mbenda sunu borom gën ko fa yàggal ci dolli wéram waaye noonu itam lañ koy ñaanale Cheikh sëriñ yëpp nag yàlla gën leen fee yàggal waaye nag du ñaanal jàmbaar ji ci Thiès di sëriñ Moussa Mbacke sunu borom gën ko fa yàggal ci dolli wéram ndax jàmbaari lislaam la kon côté bi loolu la noo ngi jégalu kàddu yi bismillahi rahmaani rahim Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu waa Wilaya Femme ñooy nuyu ñëpp ku ci nekk ci tur ak sa sant di balu àq ñëpp ci weer bu tedd bi ñu nekk yal nañ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin li euh, sabab jotaay bi nag mooy conférence conférence bi jëwriñ ji wax na ko léegi conférence Wilaya Femme boo xam ne bi ndigal lu yàgg la dañ koy jotoon di ko war di def juróom-ñaari fan ci weeru koor moom lañ joxoon ndigal yi ñu ko dem mais dañoo dem ba ci digg ñu xam ne juróom-ñaari fan yi aussi bu ñu ko defee duñ gis kenn parce que ñu ci bëri dañuy day tombé léeg-léeg jour ouvrable nit ñi di liggéeyi ñu ne nag léegi ku ci nekk rek jour bala arrangé nga def ko ci donc loolu moo tax tey ñu jàpp dimanche bi pour def ko ci euh, di ci woo ñëpp nag amul kenn ku ñu bàyyi surtout section Thiès ñu ngi woo euh, sous section adulte ñu ngi koy woo sëñ Moustapha Dieye ak ñëpp ñu topp ci kawam ñu ngi koy ñu ngi leen di woo ci suñ conférence bi di woo sous section village jeune ci njiital sëñ euh, Modou Mbacke Mbay ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp pour ñu teew si di woo nag waa waa ñi ñuy organiser conférence bi di Wilaaye Femme ci njiital njiital soxna Xadi Ndiir membre yëpp lañ bëgg ñu sol seeni baxa baxa complet palmaan ak baxa ñëw toog taaral dëkk bi taaral euh, conférence bi donc ñu ngi woo ñëpp amul ku ñu bàyyi di woo di di di di wax rek ne conférence bi ñu ngi ko jagleel di ci fàttaliku suñu ay jàmbaar yoo xam ne yi dañoo wàcc ay liggéey muy euh, sëñ Modou njaay Murit moom lañ ciy fàttaliku bu baax a baax a baax parce que jàmbaar la woon ci mbooloo mi trop jàmbaar la woon dox na waaram ba mu egg mu doog dem wu boroomam di ci fàttaliku aussi soxna ndikku sàmb moom itam jàmbaar la woon ci wilaay femme dëgg yàlla teel a wàcc liggéey moom itam ci ndaw mu ngi koy ñaanal yàlla yàlla bu mu fekk dara lu mu ragal ca barsàq gam jëm di di ci fàttaliku nag suñu sëriñ di ci sargal suñu sëriñ sëñ Moussa Mbacke mi nga xam ne moom itam Euh, coonoom léppam def na ko ci ci ci ci fédération bi amul lu mu lu muy lu mu yéenewul fédération bi di ci liggéey xam ne papaam baayam moo soxo sosoon fédération bi mu di ci liggéey ak yéene di ci ménager benn effort loo ko wax rek ci fédération bi mi ngi ci bañ na ko nag ba bokk ci sax nag eh, inscrire ci nekk ko nekk euh, vice président ci ci ci fédération bi cees nag moom mu jël ko muy mu yëfu boppam lépp lu ñu lu ñu xewle cees sëñ Moussa moo ca man donc waa ci ñuy wilaay femme nag choisir ko ren ne il faut ñu sargal ko ci euh, ci ci ci suñ conférence bi ñu bëgg cee sargal sëñ Moussa bu baax a baax a baax a baax ku ñu ci jàppale nag ñu jël ñu ngi woowaa Cees yépp fàttewuñu kenn di woowaa Ndaxaar bay di woowaa Kër Ibra Faal di woowaa Ndooyeen ñu ngi woowaa Looyeen ah, diwoo cees Thiès yëpp daayira ci Thiès yëpp daal ñu ngi leen di woo waa kër sëñ Lamine Mbàkke fàttewuñu leen ñu ngi leen di woo ah daayira buy nekk ci Thiès daal muy murit muy tijaan fàttewuñ kenn ñëpp la ñu woo ci suñ conférence bi parce que conférence bi dañ dañ ko daf ñoo soxal trop bëgg nañ ñëpp fekk ci waxtaan bi ñu ciy waxtaan itam di sëriñ Touba ah, nu mu dundee woon jàmm loolu la ñuy waxtaanee te ci actualité la aussi fi fi ñu toll nii jàmm rek la ñëpp yi soxla fi mu nekk nii ci Sénégal gi jàmm lañ fi soxla donc ñoo ñu jël thème bi kon nag bëgg nañ ñëpp ñëw déglu ñu faram fàcceel ñu jàmm naka lañ koy doxalee naka lañu koy defee wax dëgg yàlla bu sañoon daal ñëpp teew ñu ngi woo nag suñ suñu jëwrin ba xam ne bii mooy secrétaire national bu Wilaya Femme di soxna Ndeye Fatma Mbacké ak ñëpp doomam yeeg rakkam yi koy jàppale ci liggéey bi ak taalibe yi ñu ngi li woo ñëpp fàttewuñu kenn jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki jullit yi waa wilaaya ñoo toog di woote la waa wilaaya eh, fan la wilaaya Thiès soxna yi wilaaya femme bu Thiès ñoo woote li ñu woote mooy conférence conférence bi ñu yàgg koo def cet nekkuk sëñ Mbàkke soxna loo ba nëga ni tubaarkal la ñuy doxal conférence bi ren amoon noon teq-teq ci diggante bi mu doon Covid bi wilaaya faam jogaat kàddu gi ma ngàbb di ko wax kàddu Adja Khady Ndiir muy sunu présidente wilaaya faam bu Thiès ci it kàddu soxna Ndey Fatma Mbàkke ak i rakkam ak am ngi jàmmam ak i taalibeem ñi mu àndal di liggéey liggéey bi la macha allah wilaaya woote conférence ñuy ñaan ci kàttanu borom bi darajay Mouhamed barka sëñ Touba yal nañ ci am réussite ndax conférence bi la macha allah ñu ngi ko ànd ak góor yàlla yépp ndax président ngi toog di Cheikh Moustapha Dieye tabarakallah wilaaya jeune ci du Mbacke wilaya adulte ci Cheikh euh, Moustapha wilaya jeune ci moo Modou Mbacke waa social ñëpp entité yi ëmb lépp wilaya la ñu ngi ànd ak ñun ci liggéey bi kon wilaya faama xewle waaye wilaya om yëpp tubaarkalla la nu gën a jàmbaare ci liggéey bi fa la kon jërë ngeen jëf. ci barkeb Cheikh Moustapha Muntaxa góor gu tedd gi ci jal bi tabaarkalla yal na am réussite la ñuy woote di woo soxna yi di wax soxna yi ni soxna moo gën a mën a teeral toogaay soxna yi na yi jekk na palmaan yi tàkk tubaarkalla na sañse yi rafet la macha allah te na portefeuille yi fees ki koy defal conférencier bu nekk ci ñun la bu bokk ci ñun la bu nekk ci suñu xol muy sëñ Mamoun Diop ñu di ko ñaanal yàlla mu gën a yàggata sax fa tabaarakallaa macha allah ñuy woote itam tubaarkalla woote gi ñuy woote tubaarkalla ñu ngi woo bi ma woowee soxna Ndeye Mbacke ak waa Touba ak ñu mu àndal ñëpp ak waa Taïf ndax ñun Taïf la ñu seexandool kon tubaarkalla ñu ngi woote région yëpp fu wilaya nekk ñu ngi lay woo ci sunu conférence bi ñun soxnay Thiès tallal la sunu loxo tatagal la di la wax bisimilah ci sunu conférence bi ñu ngi woote waa Ndoyeen ñu ngi woote waa Looyeen ñu ngi woote waa kër Ibra Kaan Faal ñu ngi wooyit waa Tiwaawoon ci kadduk Oustaz Seen njabootam gépp la mobiliser la nee nañ ko wisil ci conférence bi may wooyit man soxna Rakki Caam waa Cees daaray kokki ñi ma bokkal di liggéey daaray kokki góor jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di woo di woo daayira yi ci Cees yépp la kuy wuyoo yàlla ak yonent beeg lislaam te sëñ Tuubaa gën laa ñor la ne ci sa xol ñu ngi lay woo ñu ngi woote ci sunu conférence bi ñaan ci réussite di ñaan woote autorité yi ci dëkk bi yépp it la sunuy bokk sunuy am di jàmm sunuy xarit sunuy soppee nanu ñëpp wuy sit ci sunu conférence bi fu waaye nekk ca la ngay liggéey bu dee marché ba bu dee gaar ba bu dee feneen fu mu mën a doon ci Cees ku ne fa nga fay liggéey woo nañ la woowal say mbokk tubarkalla macha allah yal na yàlla def réussite ci euh, daay euh, daayira bi yàlla def réussite tubaarkàlla ci euh, conférence bi yàlla may nu ci ndam te nu doon ay jullit rek fa tubaarkàlla macha allah doon ay taalibe faw ak tubaarkàlla farlu ci liggéey bi rek ak góorgóorlu ci macha allah jazaakumullaahu xayran fa tabaarakallah macha allah. aouzu billaahi mina sheytaani rajiim laa xawla wala quwwata mbokki Thiès. mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar ci weeru tedd wi weer wu barkeel bi di ñaan yàlla sunu borom nangu ñu jaamu yàlla gi ñuy wax ci ndigalu sëriñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fanu gudd ba li mu yéene liggéeyal maamam mu am ci lu kawe njort di ziar sëñ Ahmadul Maxtaar moom Cheikh Moustapha di ko ñaanal yàlla mu gudd fan ànd ak wér ba li mu yéene liggéeyal maamam mu am ci lu kawe njort di ziar jëwriñu daaru xudoo sëriñ Cheikh Mbacke Madina di ko ñaanal yàlla mu yàgg ci kanamu njaboot gi ba li mu yéene yëpp mu àggale ko di ñaanal di ziar Serigne Abdourahman moom seen Cheikh Mbacke Gaynde Fatma li mu yéene am ci pàkku baayam bi mu am ci lu kawe njort di ziar Serigne Moustapha moom soxna Assou Buri président de fédération des groupements religieux et culturels de disciples de Cheikh Ahmadou Bamba di ko ñaanal yéene yi mag moom yi amoon mu àggale ko te ñëpp fekke ko te tal ko di ziar bu baax soxna faat Fatma Mbacké mi nga xam ne mooy secrétaire national chargé des wilaaya femmes di ko ñaanal tamit euh, liggéey bi nga xam ne moom la taaw mu am ci lu kawe njot di ziar bu baax président section Thiès Serigne Moustapha Dieye di ko ñaanal yàlla mu am lu kawe njot ci liggéey bi te ñu fekk ko ñun ñëpp tatal ko di woote nag bés boo xam ne bés bu rëy la ci Thiès ci ndigalu sëriñ Mbacké Mohamed Serigne Mbacké soxna loo wilaaya femm Thiès di ko woote fii ci Thiès mu yàgg lool. ñu yàgg koo ànd ak waa Thiès yëpp di ñaan ci daraje Sëñ Tuubaa yàlla mi nga xam ne dara tëw ko kilifa yi nekk Thiès dañu ñu yàgg koo ànd ak ñoom tàmbalee ko ci Serigne Moussa Mbacke Gaynde Fatma Serigne lamin moom sëñ Mbacke Madina Serigne Cheikh Mbacke suran Serigne Salil ture mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne bi fii ci Thiès ñu ngi ñaan yàlla sunu borom dolli ko wér ak mbokk ji di féete Thiès yëpp ñu ñaan yàlla sunu bés boobu ñun ñëpp ñu teew fii ci Touba Thiès dajale ci ngërëmu Sëñ Tuubaa xam ngeen ne jamono yii mu toll ak fii mu toll àdduna bi yëngatu na te ñëpp a ngi woote jàmm wilaaya Fam bu cees nag ci vision wu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma mu woote ci nag war a joxe wàllam ci liggéey boobu waaye nag tànn nan la Serigne Touba gisee jàmm mu nekk exemple suñ ko toppee yàlla dafa ñu jàmm ñoo ngi woo ñëpp di woo autorités religieuses yi di woo autorités administratives yi di woo mbokk taalibe yi daayira yi ñu ngi woo ñëpp ñu ngi ko seqal tamit ñu ngi leen di woo waa Kër Ibra Fall ñu ngi leen di woo waa Ndooyeen ñu ngi leen di woo waa Ndaqaar Mbay ñoo ngi leen di woo di woo waa Tiwaawan ci seq bi ñu seq ci wàllu liggéey sëriñ bi ci njiitalu Cheikh Moustapha Sène Oustaz di woo jigéen ñi ñëpp di ñaan yàlla ci darajey Sëñ Tuubaa képp ku sol sa dàll jël ay jéego jubal si Touba Thiès yàlla nga ci dajee ngërëmu suñ Touba ñu fekkee ko tattal ko bés boobu tamit di bés bu rëy wilaaya faam dara jaalee ko sëriñ Moussa Mbacke di ci ñaanal nag ñaar ñoo xam ne ay jàmbaar la ñoon ci liggéey bi ku nekk dégg na moo njaay murit kooku nga xam ne bi sëriñ bi joxee ndigal wilaaya faam rek dafa soppi aw turam tuddee boppam Faat Ndiaye kooku nag lañu ñu fas yéene ñaanal ndax ci at murit bi ci la wuy suñu borom soxna Ndiku sàmb ku nekk xam na liggéeyam ci wilaya Fam kon nag ñooñu moo ñu boole ñu ngi woo waa kër sëñ ma Massamba di ñaan yàlla sëñ Mamor moom sëñ ma Massamba xalif yàlla na ci yàlla na ko yàlla yàggal ko fi. ba li mu yéene liggéeyal bàyyam te mu am lu kawe njot di woo ñëpp di woo waa kër Cheikh Abdoulaye Yakhine Diop soxna Saybata ndax ku ne xam na digganteem ak wilaaya ak taxawaay bu am solo ñi ngi woo ñëpp di woo Baye Fall yi di woo waa Looyeen di woo ñëpp rek di nga xam ne Touba Thiès gi ñu woote nag day pàkk bu barkeel di bés boo xam ne ñu ngi ciy ñaan képp koo xamante ne amoon nga yitte boo xam ne boo demee Touba mu faju te sëñ Modou saa waxoon ne ku mënta àgg Touba boo jaaree Touba Thiès boo ko fasee nga am ko ñu ngi ñaan ci darajey Sëñ Tuubaa ku fi ñëw aajo boo fi indaale balaa ngaa egsi sax yàlla na ko yàlla faj yàlla nañ ci am réussite ñu fekkee ko jàmm te tal ko daje cee ngërëm Sëñ Tuubaa ñoo ngi jégalu kàddu euh, bés boobu tamit na ngeen xam ne ne euh, dimanche lay doon le 9 avril 2023 ci Touba Thiès danañu xëy wàcce kaamil waxtaan ci jàmm ak Sëñ Tuubaa kon nag na ko ñëpp ñëw fekkee le 9 avril 2023 ci Touba Thiès à partir de 10 heures ñu daje fi ñun ñëpp te daje fee ngërëmu suñu Tuubaa mbokk yi dégg ngeen woote boo am solo boobu nga xam ne suñu wéyjur yi woote nañ ko ah, woo Daaru Xuddoos gi yëpp waaye woo waa Thiès kaay gi nga xam ni fi la ñu nekk Touba Thiès la defee bis bi incha allah la ah, 9 mbokk yi wéyjur yi ñoo woote te bis bi bisul islam la ah, ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci section bi rawatina wilaya jeune nañu farlu te xam ne suñu yaay yi ñoo leen war a accompagner ci li nga xam ne ci la ñuy nekk rawatina waa organisation ci turu Serigne bu ko defee ñëpp ñu waaj ci bu bis a ñëw jàppale suñu suñu wéyjur yi ci liggéey bi comme niñ ko daan defee ci événement yi fi jaar yëpp euh, waaye invité mbooleem koo xam ne rek euh, yaa ci biir dëkk bi ngir ñu ñëw ànd bis bi nga xam ne bisub lislaam la euh, rendez-vous bi la neuf la incha allah Modou Mamour bu Dakar mooy waxtaan li nga xam ne mooy thème bi di jàmm ndax société bi soxla na ko réew mi soxla na ko dal gi rek lañ fiy ñaan bu ko defee mbokk yi bu ñu ñëwee lépp luñ fi jël yàlla nekk njëriñ ci ñun te ñu fekk waa fan ak wér rendez-vous